dal ak jamm mbokk yi ci Buzz bus mtv ñu ñew si candidat yi nga xamne nak ñom d'accord nan ñu daldi di def ay élection ñom nak paré nan pour jëm si élection yi waye nak amna lenn si ay candidat yo xamne lank nan nenañ dal ñu élection am ñu ñew nak si candidat yi nga xamne ñom bëgg nañ dal li conseil constitutionnel daldi di wax ñu daldi koy jëfé bokk na si ñom Aliou Mamadou Dia Mamadou Lamine Diallo alaaji Mamadou Diaw ak Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Pape Djibril Fall Diomaye Diakhar Faye représenté par son mandataire Amadou Ba Malick Gakou ak Serigne Mboup Aly Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Daouda Ndiaye Anta Babacar Ngom Khalifa Ababacar Sall Thierno Alassane Sall ak ki nga xam ne moo di Habib Sy mu mel am na ñoo xam ne daal ñoom bëgguñu ay élection am daal jamono bi pour ñoom daal élection warul mën a am daal bokk na si ko si mel ni kii di Amadou Ba ak ki nga xam ne moo di Idrissa Seck ku si mel ni tamit ki nga xam ne moo di Rose Wardini ak leneen si ay candidats yoo xam ne ñoom daal jamono bii daal jàpp nañ ne daal ay élection waruñu ko mën a amal si ni nga xam ne nag noonu la Sénégal mel. mu nekk quinze candidats yoo xam ne daal ñoom bu ñu sañoon ay élection am kon daal jàpp nañ ne élection yi dafa war a am ndax bu ñu xoolee lim bi nga xam ne bëgg nañ élection am te conseil constitutionnel noonu la ko waxee moo ëpp kon bu ñu xoolee ci majorité bi kon vingt 2024 yi dañ koo war a amal ndax amuñu benn lay boo xam ne daal war nañ kaa mën a teg ba bañ élection daal di am ku ci mel ni président Macky Sall moom d'accord na li conseil constitutionnel wax dina ko jëfee assemblée nationale waa ba ñu wote woon ñu neenal ko ñoom it dinañ jëfee li conseil constitutionnel wax waaye daal lenn si ay candidat daal ko si mel ni Amadou Ba sa Seck ñoom daal bëgguñu élection am mu nekk nag mbir moo xam ne doy na waar lool dinañ leen toppal information yi lépp loo xam ne daal tukkee na si dinañ leen ko dégtal jaa ngeen jëf.